dix-neuf heures quarante et un diggante Ndiaye Tine ak Guiro Seras Guiro Seras ngeen di gis noonu ba si di ñëwaat di jaab di jaab di njaab di njaab di njaab di njaab di njaab ak <laughs> daal di dibu suuf jàkkaarloo di Ndiaye Tine wan kanam combat ba bangoog ku ñu fi indi tey mooy Assane Ndiaye production bii combat ñaari xale yi Ndiaye diin ba diin stoppé Guiro mu daane ñaari baal bool yi diin ñëw tey ànd ak kii di magam Tapha Tine tey bii combat. fu toll nii ñëpp ngi teg waa Passe nañ teg waa Pool nañ teg ab bi baa ngi laajte ndax pare ko waaw. arbitre bi sifflé na déedéet attends <laughs> am na lu ñuy xaar. daay din Guiro Seras ku si ngay jat ci bee ngay jag Tyson Gris Seras ab bi dina sifflé waat ab bi sifflé na Tyson moo ngi déplacé wu vers la droite non non Gris Seras Tyson ngay topp ñoo ngi dem lay bëree Gris Seras côté bi lay bëree <laughs> ku mën xeex ak ku mën bëre ñooy bëre tey Kiré Seras Ndiaye Tine déet ah eh, rokkos na ko mu daal di gënaat Ndiaye Tine de dafa mel ni ku ñëw xeex xeex avertissement pour Kiré Seras xoolal man Tapha Tine moo ngi ne moom jàpp daal si wen yi mbokk ndey koy jur. gressage Ndiaye Tine eh, day xeex for force mu xeex xale kaay xeex moo ko gënal kaay lekk gressage Ndiaye Tine waxoon naa leen foog ñu xeex waaye yàgg-yàgg si bëri lay mujjee dem takk na ko day ci takk na ko day ci takk na ko day ci takk na ko nu mu koy def wala gën lu koy mbooti day ci takk na ko lu koy yanu da koy yanu ne sa suuf day ci grosse séance day ci grosse séance bu ñu jëm taxul mu daanu xale bii dafa dëgër daan na ko saf na ñaay wala déedéet amul moo ngi koy suqi grosse séance day ci la koy yanu. ba léegi demul xale bii waaye xale bii waaye moo ngi koy suqi moo ngi koy suqi moo ngi koy suqi moo ngi koy daanu taxul daanu moo ngi koy suqi waat un deux trois moo ngi koy suqi moo waa ba wàll moo ngi fayul waa ba wàll waaye taxul Guiro Séras daanu eh, taxul Guiro Séras daanu Ndiaye Tine loolu daanu Guiro Seras suqi ko waaye taxul Guiro Seras daanu moo ko woon nangu ba léegi Ndiaye Tine lu muy def Guiro Seras lu muy dem ba génn si mu ngi def kat appui waaye mu ngi koy suqiwaat waaye eh, waa bool ngay kontaan mu ngi fayul deux trois <laughs> da koy yanu loolu daanul Guiro Seras. dafa bëgg génn saako yi yar na doon na ko daan na ko eh, waaye daan na daan na ko Ndiaye Tine daan na Guiro Seras doon na ko daan na ko Ndiaye Tine xale zumba xale zumba xale zumba Ndiaye Tine la sant rek. sant rek. lan ngay wax Ndiaye Tine sant rek.

ndam lañ doon ñaan yàlla. yàlla jox nañu ko. di koy sant di ko gërëm. di sant waa Bawol gépp nag. di sant waa Bawol gépp gis naa taxawaay bi. gis naa jàpp. la moo ji jiitu ci lam mais nii la ko yàlla tudde maa ngi koy ñaanal ba ma dee combat yàlla na ko yàlla suul daal lam dafa metti lam dafa metti waaw combat bi noonu la mënoon demee rek conseil la bëri après sama lam lii la yàlla dogal. noonu la. li topp sama ginnaaw li topp sama ginnaaw bari man du ma def erreur. man damaa ñëw di préparer sama combat mais du ma ko def damay def teg ak tey bu am ni ma bëgg.